mars kaddu Seydi Kassoumala nee na Idrissa Goudiaby mi nga xam ne nag moo faatu woon fan yi nga xam ne moom la ñu génn sa diwaanu Ziguinchor fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin ñi nga xam ne ñooy ay mbokkam nee na ñu balu fetal moo ko rey te Idrissa Goudiaby moomee maanaam taximan la waaye nag li doy waar ci mbir mi ma léegi ni jébbalu ko ay mbokkam jébbaluñ leen tamit ak këyit guy wane ne Idrissa Goudiaby mii maanaam balu fetal rëyu ko ci autopsie ba ba tey moom Seydi Gassama nee na Abdoulaye Diatta ma faatu woon ca Bignona moom di ba léegi jébbaluñu ko ay mbokkam te ay mbokkam nee nañu maanaam maanaam balu fetal moo ko rey yéen kaay gi di sursoir nee tey ji ñi nga xamante ni ñuy waa coalition Yewwi Askan Wi ñoom dañoo bëgg a amal nag manifestation ci Ndakaaru ak ci biir réew mi yëpp waaye nag dañu leen koo tere dañu leen koo tere ba tey ci journal bi nee na caserne yëpp yëpp yëpp génn nañ ña fa nekkoon caserne ya takk der nekkoon ci caserne yëpp génn nañu leen sol leen ci gox yi nga xam ne nag dafa sensible ma ne la budu Dakar bëri na ay région yoo xam ne gouvernement bu Sénégal yóbbu na fa ay takk der police gendarmerie jël nañu seeni matukaay ba tey ci journal bi di Source A nee na Ousmane Sonko démb nag wax na ak ay militant ak ay militantam ak ay sympathisant maanaam ay soppe ma nee na leen yéen ñi nga xam ne yéen a bëggoon a fanaan sama kër loolee nag maanaam bàyyi leen ko dem leen ngeen ñibbi xam leen ne jàmm rek mooy am tey jii ci guddi gi ak suba lan la coalition Yewwi Askan Wi di waajal loolee ab laaj la tey jii ñoom amal nañu ab conférence de boo xam ne bërëb ba ñu koy defee dañu koo làq yéen a kaay gii la sax xëy dañu xibaar naan ñu ji ci àllarba ji dañoo bëgg a amal ay manifestation ci ndakaaru ak fu bare bari waaye nag dañu koo tere laas yéene kaay nee na dakaar tere nañ koo sigi coor tamit tere nañ ko ñi nga xam ne ñoo dëkk Bambey ñoom tim tere nañ leen ko waa Tiwaawoon tere nañ leen ko waa Tamba tere nañ leen ko waa Kaolack tere nañ leen ko waa Kolda tere nañ leen ko waa Sédhiou waa Thiès waa Saint-Louis waa Diourbel waa Fatick ñëpp tere nañ leen préfet leen tere nee na leen amu leen sañ-sañ di amal li nga xam ne mooy ay mars ndax nag lañu say ragal mooy infiltration yàq alalu askan wi tabaski gaa ngi nii loolee la préfet yi wax yéen a kaay gii de Les Échos nee yi xotti nañ demande yi nga xam ne coalition Yewwi Askan Wi maanaam jébbaloon nañ leen ko yéen a kaay gii di Sud Quotidien xëy fësal ci xëtam mu njëkk na mercredi de tous les dangers ah tout cas mbir mi nar naa jégg dayo kaaw nar naa am xanaa kay coalition Yewwi Askan Wi maanaam deltu ginnaaw bu coalition Yewwi Askan Wi deltuwul ginnaaw tey jii ci àllarba ji musiba maba kumba mën naa am ci Sénégal yéen a kaay gii di Rewmi Quotidien Ahmed Aïdara maire bu Guédiawaye mer na ba maana day tali démb janoon ak tas ko do xabaar musiba ak mbele ngaan ki nga xam ne mooy ma Sall nee na Macky Sall police am la yor di leen réprimer di leen jaay doole waaye loolee du jàll moom Ahmed Aïdara nee na Macky Sall na ko tay na tay mairie bu waaye ma ngi suñu loxo dina yéex a duggaat nag ci ay loxo ma waaye ñi nga xam ne corps de contrôle yi maanaam joxar bi dañ baaraamu tuuma ci ay ndëngte ñooñee la Macky Sall waroon a teg loxo waaye nag nekk fi di jéem a jaay doole te loolee nag mënut a jàll yéen a kaay gi délibération nee na Guy Marius Sagna démb la ñu ko atte fi nga xam ne mooy sigi coor benn weer lañ ko tëj bu mu tëdd bàyyi nañ ko mu ñibbee yéene kaay gi di ko di jee ci xalima ak Assane Sambo ne nañu autoriser mars yi nañu autoriser mars yi bu ñu bëggee sauver li nga xam ne mooy élection législative yi waaye nag bu ñu fi nekkee di jéem a tere ay mars dëkk bi mën naa am pëcc xoo yéene kaay gi de la turbina xëy duñu xibaar nañu ñi nga xam ne nag ay way laago lañ te am ay lijaasa maanaam handicapé diplômé yi ñoom mer nañ ba maara de tali grève de la doon def jamono ji am nag ci koo xamante ñaari tali dañu koo mujjee jël sax rawale ko hôpital yéen kaay gi di Sud Quotidien ñu xibaar naan ñu gaal gi nga xam ne moo këpp woon ci waaxu Kafountine yi ñi nga xam na ñoo si ñàkk seen bakkan lim yokku ndax jamono ji toll na ci fukk ak ñeent yéen kaay gi de la Serigne Mbaye Thiam mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum inondation yi Serigne Mbaye Thiam ministre nee na nag moom daal du fi nekk naan waaw inondation du am inondation du am moom Serigne Mbaye Thiam du ko wax kon nag bu inondation amee bu mu leen bett yéen kaay gi di sunu làmb xëy duñu